bëgg dama ko soñ moom defal si borom lu mu ñaan lu mu rëy rëy rëy lu mu rëy rëy rëy ci sa ci dëkk lu mu xool xool ko ci xel na nga xam ne na nga ko ñaane na nga ko bindee na ko si borom ndax moo ko wax wa annahu jaala ma katabtu kama katabtu wa ma katabtu dafa ne man lu ma bind rek wala ma ñaan ko na ma ko bindee la ko si mën a loolu ñaaree rek yemoon foofu mu doy sëkk mu teg nag wa bashir biha rasulallahi sallallahu taala alayhi wa sallam xasee mu waxee nag maa ngi lay ñaan ko jàng na yonent bi di bëgg rek. lenn déglu yonent bi képp xajul ci àdduna ak laaxira ci ñëpp mën a jël mën a mën caa mën caa jël kon bu yemoon foofu itam mu doy sëkk waaye wajalha mimma tataganna biha al umru al wal bildan la li janna allati u'idal muttaquun ba tey xasida gi na ko def muy soxla yi nekk ci àjjana joppalee nit ñi na nga def waxtu wu nekk di ko wayantoo waxtu nekk nga xam ne kon nit ki wala murit bi jàng xasida muy neex ci wala mu jël mu neex na xam ne am na ñeneen ñuy def ne moom te bokkuñu pays yu nekk nga xam ko Seydou léegi mbir nag da dem ba miin ko tax moom jaxasoom di ko gis tax dayoo ja danga maa ngi soññ ak sama bopp leen soññaat bi gën a góorgóorlu ci xasida dañ ko gën a fonk xam ne luñ bëgg àdduna ak àllaaxira rek suñ boobu denc bi ci xasida ndax xasida dafa daj dafa dafa dajale yu baax yi yëpp nit man caa bi ngërëmal yàlla daf asir daf ko dajale daf ko dajale xasida jëmu juróom benn yii muy almadxu wa salaatu wa duaau wa jihaadu الذكر الشكر الذكر والشكر وإلا خاصل جرم بين يرجل وإلا بلشان تبي يتاكو سنبرم ديكو نيان نعم، ديكو سنت ديكو تب أمنا خاصل يوحب نك سنكو عن كو دف boo ko waxee léegi si borom da koo tudd te tudd yàlla dañ mayal ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla mooy lépp wax nañu sax am ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana ndax ngërëmal yàlla moom daa dajal lépp te xas li da koy maye wa ridwaanu min allahi akbar wa dalika huwa al fawzu al azim gërëmal yàlla li waaye di kër kër yi lu muy sonne rek gërëmal yàlla si la ci suñ jotaay bii képp gërëmal yàlla ci sàkk di ko jaar ci seen bopp kon lépp lu lay may gërëmal yàlla nit war a jaar sonne woo te dara jiitu dina xasida dara jiitu ani llahu wal muxtaaru wa xamat kulliyatin astaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom gërëm na ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm na ma kaaraay lii ñu ngi may dikkee ci fu ne sama lépp ay sutura la bu ko nga bu ko may ngërëmal yàlla parce que ndax moom mooy ak liggéeyam sëñ Tuubaa ak liggéeyam mooy xasida te moo ne sama sama liggéey bi suñu borom nangu na ko kon li ma amee ci ngërëm yàlla loolu xasida parce que dafa dafa amee wa jamiha xidami taqabala la wax wa jamiha xidami taqabala boo leen sama liggéey bi suñu borom nangu na ko te luy dugub sëñ Tuubaa mooy xasida sel yitte woko xamna xam wax waxi sëñ wala muy tagee bi muy légal yàlla la bu gëmee man na ca amé lépp ak àdduna ak xira koko lu ci mul amul ci rek ci mom la lu mul amul ci xasit rek ci mom la waye nak xasit pour nga am nga am ci njëriñ toll nak ba am na mu laaj laaj nga xam li nga am lan la ak noo koy jëriñoo ak noo koy noo koy noo koy jëfandikoo suñu borom bi baaxee ci alxuraan ne jullit ñi taxee nañ